te loolu pense que ça profite à personne. Mhm. alors ci fermeture entreprise yooyu comme ni nga ko daanelee foofu nañu desee ni ba tey ndax euh, semaine ba la ci ginnaaw mhm. euh, xamaloon na ni carrément lii di première bête moom dina euh, tëj entreprise am fii ci biir réew mi ba ñi nga xam ne sax ñoo fi doon liggéey génnoon di ab kopp am koppar gu ñuy laaj ki nga xam ni moom moo di seen DG alors ci noonu aussi tey nu xëy di nu xamal ni seen directeur boobu noonu gin di tey teg nañ ko loxo fële. ca AIBD ginnaaw bu mu doon jéem a génn li nga xam ne nag moom moo di réew mi moom nag nu koy daal di toppee mbirum euh, fiscalité lu tolloog douze milliards francs fa mu doon jéem a génn ànd ak li nga xam ne nag moom di euh, njabootam alors comme ni nga ko daanelee léegi dina bëri entreprise yoo xam ni euh, ñu si bëri doon fa liggéey den dem li nga xam ne nag moo di chômage mais bi moom daanaka flagrant la daal di nekk ndax fan yee ñu ngi doon waxtaanee fermeture ba ñi nga xam ne fa doon liggéey comment amoon na doon benn conférence de presse di ñaaw lu baax baax lu ni mel waaye tey nu xëy suba nu ni carrément kii di euh, Joris Dënkal nekk seen seen seen patron mu ngi doon gé jéem a génn réew mi finalement mu doon ko teg loxo moom ak njabootam ndax mbirum fiscalité euh, moom nag ci euh, libération mi ngi ñuy xamal ni depuis octobre 2021 daanaka fayut l'impôt fii ci biir réew mi donc 2021 boobu noonu gin ak octobre bi ñu si bëri xamoon na ni moment bu Sénégal dafa nekkoon si ay jafe-jafe lan nga yaakaar ni moo tax moom daa fay lii di ab l'impôt fii ci biir réew mi. ah impôt koo fay état moo la ko moo la ko bàyyi. maanaam impôt moom hmm. ku la ku fayul hmm. état moo la ci bàyyi lu tax état bii di ñii nii di force nit ñuy fay moom dafa même direction des impôts moo fi nekkoon hmm. moom dafa bokkoon si ñu amoon euh, amnistie fiscale wala léegi dama lay wax code général des impôts lan la wax ci ki li ñuy baalee nit mu bañ a fay impôt loolu laa lay wax pour nga xam ne impôt yow mënoo ko baale impôt man wax a baale n'importe quel nit mënu ko baale ci réew bu Sénégal bu dee loi lañu appliqué xam loi bi lan la hmm. daf ne l'État du Sénégal. Hmm. a l'obligation de recevoir des impôts des taxes. Hmm. des redevances des pénalité de la part des sociétés des entreprises des structures mooy État wu Sénégal dafa am obligation. dem ci entreprise yi nekk ci réew mi jël lum fa moom 12 pour cent yi. impôts yi redevance yi pénalité yi mu jël xaalis boobu dugal ko ci keesu état dugal ko fële nga xamante moom mooy trésor public mhm. obligation waxuma ne ay négocier de ñu ne léegi nag nu ñuy fay dafa am yoon mhm. ñu ne nu ñuy fay mooy bu fekkente ni entreprise bu tudd ah dafa am problème war a fay impôt bu nangu ne war na ko fay te mënu ko fay dafay bind benn lettre mu adressé ko ministre des finance ne ko lettre loi bi def ne. Mhm. bi nga waree fay mënoo fay d'accord nangu nañ. nit kenn du ko mun def loolu mënul waaye da ngay reconnaître ne yoral nga ñu yoral nga ñu impôt maanaam da ngay nangu na yoral nga ñu ba pare. Mhm. parce que ñoom bu ñu la defee information yëgal na ne yow yaa ñu yoreel un milliard loolu mooy information bi. Mhm. am nga droit nga contester nga ne déet yoreel naa leen waaye du un milliard ñu ne léegi tontu. boo tontoo. nga ne yoruma leen un milliard mais huit cent mille laa la yoreel. après nga indi sa argument. léegi su boobaa ñoom dañu naan ah d' accord li huit cent mille nga ñu yore waa léegi fay ñu. léegi nga ne man mën naa war naa leen fay waaye yoruma xaalis. état ne la ah di nga fay de. nga fay moom léegi mën na la état ne la léegi man dinaa fay mais léegi est ce que mën ngeen ma may ngeen defal ma remise. remise. remise mooy ngeen teggil ma ci ngeen teggil ma ci. Mhm. wala est-ce que mën ngeen ma defal moratoire may fay par moratoire hmm. mooy 800 millions mënu ma yëkkati tout la ko waxee tamit dama nax. maa ngi nax sama bopp. mais est naa fay. Hmm, par tranche par tranche. 800 hmm, millions par chaque mois ma jox leen 80 état ne d'accord parce que dans tous les cas état day nangu. parce bu bañee lii lu muy def mooy tëj la rek tëj entreprise bi yow après nga yor ko bor. nga jàpp nit ki tëj ko ci kaso bi ban njëriñ la am léegi bu dee moom bien yu waree ci entreprise boo ko doon dajale évaluer ko matul sax 10 millions. état yaay ñàkk léegi état day nangu ne fay ma chaque mois quatre-vingt mhm. jusqu'à ce que mu jeex wala ñu am defal la ce qu'on appelle l'effacement fiscal ou l'amnistie fiscale mhm. amnistie fiscale fenn lañ ko mën a kenn moo ko mën a daganal kenn mhm. muy député dañuy dem assemblée nationale député yi voté loi si fiscale wala député yi jox habilitation président de la république député yi ne président yow jox nañ la pouvoir nga amnistier fiscalement diw. Mhm. léegi tant loolu amul tant que ñaar yooyu amul kenn warul am amul kenn ku am maxaama ci coram yoon. Mhm. mën a wax ne diw du fay impôt loolu amul ci àdduna loolu amul ci Sénégal. léegi nag lu tax ñooy entreprise mhm. ñu daal fay impôt te mu mosuñu di gis assemblée nationale taxaw ne entreprise diw ñun député yi nee nañ. baal nañ la impôt kan moo ko fi gis. léegi kan moo doon kan moo doon daganal ñàkk fay impôt bi. Macky Sall <laughs> loolu ma loolu luwaal tere ma luwaal loo ko tere man mosuma gis Sénégal fii wala depuis. Mhm. depuis day woote ndaje assemblée ñu ne tey de dañuy waxtaan entreprise diw waroon na fay impôt waaye jéggal nañ ko. Mhm. loolu mooy amnistie fiscale. te ñoom ñoo mën a ñoo am sañ-sañ même lu loi jox mhm. sañ-sañ ñu àddu ci turu sénégalais yi ne diw entreprise bii baal nañ ko impôt. wala député yi ne président léegi jox nañ la pouvoir léegi baalal diw impo léegi ñaare loolu bu amul kenn warul baal kenn impôt donc ndagam président ma mënul baal impôt bu dul député yi ñoo ko jox sañ-sañ bi donc ministre bi est-ce que mën na ko baale fii ay ministre baal nañ fi impôt nag mais ay ministre fii ah ma jàmbal jaay moo la ko wax mhm. damaa am problème sama quotidien mhm. ñu boole ma Amadou Ba dem bureau mu woote ci kaw ñu bàyyi ah, amoon nag day tegoon quoi <laughs> yow yow ko fu mu génne lii. non non amul day day day déconné de. ah eh, amul day déconné. day nelaw non non. ah moo moo ko wax ci te seen TV. ah Amadou tamit nag. Amadou Ba dernière marche. Hmm. ci livre boobu bu mu koy expliquer ci télévision moo wax lii. Ah. te loolu mooy li gën a ndaw sëriñ bi. Hmm. dëkk bi fii ku fi am xarit. Hmm. jamono jooju xaw ma léegi de. ku fi amoon xarit. te mu nekk ci kaw. boo defee sax defoo. surtout entreprise étrangère yi tamit. léegi boo defoo defoo kay ana ala ko soo defee sax defoo. soo defee sax defuloo. Mhm. yow da yow da génnee rek. ah nga bokk rek na nga jege rek. mais mais mais mais mais Thioune euh, autorité yu bees yi fi nekk nan la ñuy def ak ak ak ak de chance yi nga xam ni daanaka gis nañu ndaw yi di ko fréquenter bu bu bu baax a baax muy euh, genre xbet comme ni ñu koy waxee nii pari foot yeeg naar bi comme ni ñu koy duppee nan nan la ñuy def ak euh, yooyu les pratique ah Ousmane Sonko de waxoon na ne. bëgg ngeen bàyyi naar bi <laughs> xale yi yuuxu ma nga ko waxee woon sa daggana a dagana ah, ah, <laughs> sama dëkk ba parce que pour ñoom xamul naar bi aram aram aram aram Diop euh, waa Saint-Louis maa ngi lay nuyu bu baax a baax pour ñoom pour mo pour xale yi Sonko xamul naar bi pour ñoom Sonko sénégalais la mais nekkul ci ci ci ci kii bu quoi di baa bi mhm. ak a xam langage yu sénégalais yi baax sax parce que ce que ngeen xam naar bi xam na naar bi moo sonal mhm. xale yu bëri naar bi moo leen sonal xale yu bëri mën nañ jël seen mille di ko fay di ko jox naar bi espérer gagner à la place ñu dem ndékki. Mhm. ñu dem ba nekk loo xamante ne dañuy dépendre ci jeu. Mhm. jeu de hasard yi mais Serigne loolu du problème. Mhm. problème bi xam nga mooy lan. man premier bet maa ngi koy romb fii su may su may ñëw di liggéey su may ñëw di def émission. soriwul fii. sorewul fi boo rombee fii tuuti ci BRT bi boo ñëwee ci intersection boobu boo wàccee pour da ngay def reportage mhm. nga wàcc fa boo ñëwee ba ci voie yi dem VDN bi mhm. fii Sacré Cœur bi dangay jéggi rek ñoo nekk nii ak seen couleur boobu duñ ko mhm. gis sorewul mooy côté boulangerie jaune même alignement bi la léegi mais kooku xam nga entreprise yu gën a dox la ci réewum Sénégal fi est xam nga ko hmm. moo ñuy def ifi fox bokk na ci bokk na yu gën a doxle entreprise état yu gën a doxle ci réew mi mhm. bokk na Lonase ak euh, euh, entreprise bu nekk port autonome Dakar mhm. bokk na yu gën a dugal xaalis maanaam ñooñu ay milliards la ñuy dugal par jour mhm. waxuma la ay ay par semaine de ay milliards dañuy dugal par jour et ñooñu du xaalis bi xaar liquide la donc ñi di def ay jeux de hasard du xaalis bi ngay xaar noo ñu ngi koy viré c'est de l'argent liquide da ngay ci ci ci ci ci fu ñu koy compter ñuy compter un deux trois ba ay millions ba ay milliards c'est de l'argent liquide. Mm-hmm. parce que fu ñu koy jouer ku yeewu boo tëddee sa yaay xool sa téléphone di manipuler. man man avant may comprendre daaw la comprendre. Mm-hmm. ni nit ñi accroché ci jeu. wallaahi. man te man ma xam ne. xawma sa nu ñuy recharger xaw ma bett xaw ma lan xaw ma ko ma gis ay nit ñoo xamante ni téléphone yi nii la ñuy def. man xaw lu ñuy def quoi nii nee na damaa bëgg a jàpp xaw ma lan. ma jàpp naa la waaw léegi ñuy def nii nii nii mais à la seconde booy wax ak ñoom sax duñ la xool parce que buñ la xoolee ñu mhm. koy expliquer. donc ma gis ne également cette même génération. Mhm. du moom kese mais ñu koy def ñu bëri bëri la mu naan ma mise mise bi def naa 2000 def naa ci 5000 def naa ci 1000 francs ma ne ko ah mais attends sëñ bi yow li nga def moom bëri na di ma ne ma des fois dama ciy gagné 700000 800000. donc pour comprendre li nga xamante ni tey ñooñu ñuy gagné ba pare di fayeeku TVA. TVA état moo ko moom. TVA du nit moo ko war a lekk sëriñ bi. CVA da koy déclarer. si da koy déclarer mooy maa ngi gagné lii. waaye si li may gagné puisque si réewum Sénégal la laa ne léegi jël 18 pour cent yi moomu ma ko. bu ñu ma fayee damay dem déclarer ko fayee ko impôt. loolu yomb na. man mës naa gagné marché sakkanul. Mhm. waaye fay naa si cinquante cinq mille. oh ah déet loolu mooy yoon. cinquante cinq mille. ma dem ñu fay ko enregistré ko ma yor sama document ñu jox sama quitus sama quittance xaw ma quittance quitus fiscale plutôt ma nekk sama conscience tranquille mhm. réyul xam naa bëriwul waaye nag au moins su ma toogee fii di wax. Mhm. dinaa ne eh fay naa ko. suñ ma nekk cuun ana ana affaire yi ma dem sama gaal léegi ma indi leen. nga génnee ko ah déet donc loolu mooy. Mhm. li war parce que waroo ko lekk. léegi soo ko dajal di ko lekk di ko lekk di ko lekk ba mu bëri. Mhm. ba mu mat ay millions ay milliards ah état bu la waxee kaay fay ma nag sëriñ bi jarul ngay daw. Mhm. foo yëpp mais système aéroport boo rëcc. yow kuy rëcc kañ ba dem aéroport mooy kaay jàpp <laughs> yow ñu ngi lay wër. waaw waaye kay fay. mooy waa ji doon daw daw ba dugg si oto policier bi toog. non dafa juum dafa juum dafa dafa juum dafa juum su doon am xam nga hmm. damay dem da war a fay ok. Hmm. mais impôt dafa code général des impôts waxul da ngay fay par la force du jàpp tëj la de dafa na ne. Hmm. reconnaître la nga war a fay ba pare. ñu ne d'accord mais bu dee mënoo fay bindal lettre ministre des finances nga ne ko war naa fay nangam. waaye yoruma ko. ñu ne mais yoroo moom du la si génnee de. Mhm. ah mais jéggal leen ma ba at yi. du wal faj loolu la def. Mhm. ñu bloqué compte yi mu mu négocier euh, après. Euh, détenteur tiers tiers détenteur xaw ma lan. Mhm. Euh, avis AD avis ADT mooy avis de tiers détenteur léegi ñu dindi ñu ñu ñu lever lu ñu lu ñu bloqué woon compte yi. léegi parce que dafa engage woon fay. léegi engagement boobu nga jël nga ne hmm. mois bi dinaa leen jox nangam boo leen ko joxlee dañuy tëjaat sa compte léegi boo fi waxaate yi sénégalais duñ comprendre loolu hmm. mais yow nekk ci nekkul dëgg naka la ñuy mën a yow ñu déggantoo nga ne ma cuun léegi yow yoreel naa la yoreel nga ma yoreel yoreel naa la bor cent mille hmm. waaye chaque mois dinaa la jox dix mille bis yaay seede léegi kon am sa téléphone kon delloo naa la ko mois bi jot joxama dix mille ma ñëw confie sa téléphone di wax ci télé yi naan cuun ma yow yaa deful loo war a def dama ne te moom li mu def sax dafa délit la délit bi mooy c'est c'est une tentative de fuite hmm. tentative de fuite yoon dala koy tere loolu bu la jàppee da lay tëj. lu bokk bokkul ak fiscalité bi ah, encore. tentative de fuite yow boo defee accident léegi nga commencé nga bëgg a daw. Hmm. police bu la jàppee xam la lay topp. Hmm. accident bi pare accident bi de. am accident mën na la jàpp ne way violation du code de la route. wala non respect des normes sécuritaires da lay topp mën na la toppee sax tentative de fuite. bu da nga doon jéema daw rëccu nga nga ñu ñu jàpp la. mais mhm. tentative de fuite te moom da doon jéem a daw jël ay njabootam te bu muy lekk xaalis million booy. Mhm. Ah, euh, neexoon na. neexoon na loolu sax yow ñun waxuñ la delloo ñu xaalis bi dañ la ne li nga yoral état 18 pour cent yooyu nga dajale ko ba mu nekk ay milliards. Mhm. génne ko ci sa banque bi wala jaayal li nga li nga ci jënd. nga delloo ko parce nag. lii nga xamante ni moom mooy pari foot xaw ma jeu yooyu xaw ma. Mhm. amul perte amul perte c'est c'est des milliers de jeunes ñooy jouer par jour. Mhm. des centaines par heure ni perte xale yooyu di perte. Mhm. kenn wala ñaar di gagné léegi ñaata la yow ñii di cotiser cinq mille ñii di cotiser dix mille ñii di cotiser mille francs ñenn ñu ko yoral di def cinq cent. alors ñu si ëpp dañuy perte. xaalis ba nga dajale ko ay dix pour cent di ko encaisser ci booy. di leen jaay ticket. léegi ñu fay la lool état nga ne ko non. dafa impôt yow léegi nag ñi responsable moo ñu fi nekkoon. Mhm. ñi waroon lijjanti loolu lijjantuwoon ko ñoom ñooy mbir mi. parce que octobre 2021 la mbir mi tàmbali. Ah, mais mais mais mais genre yooyu tey jii bu ko état bëgg a éliminer fii bi Sénégal baa du jur coow ak xale yi. Eh, naa leen fii discours bi mën na neex lool. <laughs> dañuy tëj LONASE. waxoon naa la lool. Uh-huh. mais discours bi neex na lool politique mën na la wax ne su ma toogee damay tëj LONASE nga bëgg. religieux yi kontaan. Mhm. doo ko tëj. doo ko tëj. wallaay doo ko tëj. Lonase. Hmm. bu amee entreprise bu ñuy tëj Lonase bokk ci loo koy maa ko war <laughs> bu dee am na entreprise bu ñuy tëj société bu ñuy tëj état moom ko bu dee am na laa Lonase du ci bokk te bu dee dañuy tëj société yi yëpp. Hmm. Lonase mooy moom la ñu mujjee tëj pour leneen la kenn du ko tëj. Hmm. parce que Lonase bokk na ci société yi état am. yoo xamante ni heure boo fa demee mën la jox ay milliards tout suite te chaque jour la. Mhm. chaque jour du lu ñuy xaar. Mhm. maanaam ñoom tooguñ ci naan woy bu doxee day chaque jour dañ koy am boo ko wéddee nga dem fa nga xool. Mhm. c'est de l'argent liquide la ñuy am mooy Saint-Louis am nañ fa agence. Dakar koñ nangam koñ bi koñ bi koñ bi koñ bi di jaay ñii di Paris ñii di naan woy. Euh, xaw ma nu ñu koy tuddee ku ne di jouer ce jeu. Mhm. loolu la ñuy xaalis boobu la ñuy dajale chaque jour par exemple ñu ne euh, siège LONASE ou si kii bi fi ñuy fi ñuy jouer te mu nekk. Grand Dakar bi nekk Sacré Cœur bi nekk euh, Parcelles seni mhm. bi nekk unité 2 unité trois loolu lañuy ñuy dajale chaque agence lu ñuy dajale. Mhm. léegi nag si boobaa balaa ngoon ci lañ koy yóbbu ci direction général bi. moo taxoon. fan yu la passé en 2022 xaw ma 23. Mhm. jàppoon nañ ci ay yu bëri parce que dañuy yore dañu yore argent liquide. Mhm. du xaalis bi nga xamante ne dañ koy def par chèque wala ay ñu ne la ay xaw ma ay euh, virement bancaire mais xaalis buy boo xamante ne la. Mhm. boo jaayee ba pare xaalis boobu da nga koy compter mu nekk fii cash. léegi nag bu dee amoo ci vraiment xaalis amoo ci tuuti euh, xel. Mhm. soo matul euh, cent million sëriñ bi ñu lay fay salaire boo xam ne matul cinq cent mille ah cent millions soo matul di nga tuuti ah, bu ko de. Ah, léegi nag loolu entreprise boobu du jur ay milliards par jour. Mhm. mais doo ko tëj. déedéet milliards yooyu nag xajul ci état. ankay yooyu rek mën na fay salaire bëri de. dañ koy tëj moom sëriñ bi loolu baaxul de loolu moom ah. day wax rek du ko tëj de. exit ay premier bet xaw ma yooyu hmm. ay lu ñu xam lu ñu mën a créer hmm. ay loi maanaam pour encadrer mbir mi ba. ñaawteef yi du bëri. Mm-hmm. mais dans tous les cas loterie moom dafa bëri ñaawteef. Mm-hmm. parce que li ngay wax moins autorisé non interdit au moins de 18 ans. Mm-hmm. loolu sax mën nga ko affiche nii rek mais y des moins de 18 ans yu joué. ñoo si parce que waaw boo ko bindee nga ne c'est interdit. léegi du jaay moins de 18 ans léegi man su ma kàccooree moins de 18 ans jox ma xaalis ma dem fayal ko. ñoo si ëpp. ma dem jënd dama koy jëndal ticket mu dem këram. léegi noo koy contrôler mënul nekk c'est-à-dire que léegi nag li nga war a def mooy xale yooyu di jouer mhm. dafa am lu leen manqué ñenn ñi amuñu liggéey mhm. ñenn ñi jàpp na ne vie facile mooy life bi mooy damay jouer xoos am benn euh, million benn brique ma mhm. dem fooye ko wala moo am ñaari brique ma dem fooye ko wala ten brique ma dem fooye ko et après c'est pas la vie donc je bien loolu nag état moom mooy créer mooy état mooy occuper nit man su ma amee jot di di wër di sàcc soo ma joxee liggéey boo xamante ni huit heures lay xëy wàcc vingt deux heures hmm. ngoon duma ma tal dugg sama moto di di di di kii de simol de wax dëgg yàlla parce que si boobaa man j'ai mon salaire pour ma vie pour ma hmm. sérénité mais du ma génn di taxawaal su ma wàccee tal naa noppalu et yàlla tere après yàlla def plutôt mu neex hmm. ma takk benn soxna mais eh, xalaat naa wàcc di guddee. déedéet. alors donc nañu utal xale yi xëy. 17h nga tëdd. nañu utal xale yi xëy ah. <laughs> mais mais mais mais Thioune ci ay ci ay xibaar ñu ngi xamal ni kii di euh, président Bassirou Diomaye Faye euh, dafa saisir lii di euh, conseil constitutionnel pour rek demander ko avis ñeel li nga xam ne nag moom moo di dissolution wu lii di assemblée nationale. alors point boobu nan nga ko mën jàngatee ndax ñu si bëri jàpp na ni assemblée bi moom.